à tout le monde. Alors, euh, j'aimerais continuer la suite euh, de la vidéo précédente, euh, Inch'Allah, euh, dont j'ai tenu à expliquer les différentes positions que peut avoir l'étoile de l'être humain. Inch'Allah, alors nous excusons encore une fois de ne pas faire euh, cet éclaircissement en français parce que si je persiste à l'expliquer en français, il me sera difficile de le bien expliquer alors que ça n'aura pas de sens. C'est pour cela que je préfère le faire en Olof. Euh, Inch'Allah euh, nous y reviendrons, Inch'Allah, peut-être avec euh, une explication en français. Mais je suis tellement désolé vraiment de ne pas le faire en français. Euh, Inch'Allah, je vais vous expliquer en Wolof aujourd'hui. À part, Inch'Allah, aujourd'hui, je vais continuer à faire les explications en français, euh, puis de les traduire en Wolof. Inch'Allah. waaw ñu ngi jégalu bu baax ci ñi nga xam ne yàlla def na ne ñoom kàllaama français bi rek moom lañ dégg non waaye nag li tax waxuñ ko français dafa fekk ne li ñuy wa bëgg leeral fii nii yëpp am na ci yoo xam ne daf ñuy jafe lool pour ñu wax ci français moo tax bëgg wax olof bi ndax bu mu waxee olof bi daal ci la ñuy gën a mën a leeral mbir yi mu gën a leer ci ñi nga xam ne ñoo dégg olof ñu ngi woon ci biddiw doomi aadama démb ñi tànnoon ñaari pàcc nag waxtaanee ko ci Euh, bu demee ni maanaam euh, wàllu wërsëg wi ak wàllu maanaam sëy wi xool ba xam na biddiw wi méngoo na ci wàllu ànd wi sëy yàlla defoon ñu def démb nag vidéo bi wax ci sëy ak ñi nga xam ne ñoom la seen biddiw méngoo pour ñu sëy am na ñi ñuy envoyé message di doon laajte maanaam ndax ku biddiwam nekk suuf ak safara mën nañoo sëy biddiwu suuf ak safara mënuñoo sëy ndaxte suuf fu mu fekk safara xam nga ne suuf boo xëppee safara dafay fay baaxut sëñ bi lii ñuy def nii di ko wax nii nekkul loo xamante ne nii maanaam luñ fabriqué la teg ko maanaam dafa nekk xam-xam boo xamante ne nii euh, su ma la ko doon melalal tey jii mathématique la lu ñu calculer la mu nekk loo xamante ni lu méngoo la xam nga ku ko xamut mënoo koo xam parce que ku nekkul sa domaine rek mënoo koo xam pour ma jox la ci misaal bu gàtt rek pour wan la ne la lii ñuy def nii nekkut ay léebo nekk lu pen waaye lu leer nañ la ñuy teg ko ci xam-xam. mooy ne tey jii bépp nit buy dem tey jii si àddina bi rek euh, boo demee tey jii hôpital wala xawla wala quwata dara dal la ñu bëgg laa may deret néew ne kum neex ñëw may la deret docteur bi dafay xam ci ban groupe nga bokk dana laaj yow mii groupe A nga bokk wala groupe B wala groupe nangam ci nga bokk xam nga koo bokkal groupe kooku rek moo la mën a may deret yéen a méngoo mais xam nga koo xamante ni dafa nekk groupe A ñëw di may groupe B loolu mënu nekk mënul nekk xam nga loolu médecins yi ñoo ko euh, def ci seen xam-xam bu leen yàlla dénk ba xam ne lii ñii ñoo war a mayante deret ñii waruñoo mayante deret waa léegi nag alquran mi nga xamante ni mooy jëmee xam-xam nga xamante ni yàlla dane maa farat naa fi kitaab min shay'in bàyyi wuñ ci alquran ji dara ngeen bëgg wax ne maanaam booy gëstu xam-xam boobu ba yàlla defal la ci tawféex nga am ci maanaam euh, benn découverte boo xam ne maanaam benn gëstu boo xam ne yàlla xamal na ci nit ñi nga xamante ni ñoo war a ànd seen i mbir méngoo seen i wërsëg dox ak ñu wartu ànd seen wërsëg di wuutee ñi nekk ci jafe-jafe nga bëgg a weddi loolu luy lu am la docteur yi kenn weddi wu leen ci li nga xamante ni moom lañ doxal ne ñii ñoo war a mayante deret ñii waru ñoo mayante deret waaw loolu lu xam la ku ko xamul da nga naan xamu ko rek waaye lu xam la lu nekk la lu mën a nekk la waaw loolu du ma ci sori ndaxte kum neex rek nga gëm kum neexut doo gëm ndaxte alquran nag wax na ko bu yàgg mu ne faman shaa fal yumin kum neex na nga gëm faman shaa fal yakfur kum neexit kum neexut yi mën ngaa weddi ok léegi ñuy ñëwaat ci rek incha allahu taala ci wàllu xam-xam biddiw waxoon nañ leen biddiw euh, démb waxtaan nañ ci wax ci lu demee ni ci wàllu sëy ñan la ñoo war a sëy ak ñan ñoo wërtu sëy ñu seen wërsëg àndu ñu seen biddiw àndu ak ñu seen biddiw ànd ak ak ñu seen biddiw ñàkk àndu yooyu wax nañ ci démb tey nag dañuy ñëw ci wàllu wërsëg bi biddiw boo xamante ni tege ni ci yoon incha allahu taala boromam léppam ci dox ak koo xamante ni euh, bosom dafa wàcc yoon wa mu nekk ci ay xat-xat nekk ci ay maanaam jafe-jafe euh, bu ci nekk rek incha allah danañ ci indi ay leeral wax ci maanaam sarax yi nga ci war a def bu nekkee ne biddiw bi leer na ak sarax yi nga war a def bu nekkee ni dafa lëndëm dalay yàqal comme lañ leen wax rek incha allah biddiw yi euh, ñii seen biddiw safara la ñii ndox dégg nga maam ñii ngelaw ñii suuf ñii demet demet demet demet ba mu jeex voilà kulli xaal li ci am yitte rek mooy ku nekk rek nga xam sa biddiw te waaye ju nekk rek li ngay dugg rek nga fexe nga gëstu ko xool ko ba am ci xam-xam bu la leer nga doog cee dugg ndaxte daal mbir yi dafa mat di seet comme ni ma koy waxee seet daal man damu koo d'accord te seet daal man dama koo nawloo ndax dana la yombalal nga xam fi ngay teg sa tànk ba doo def benn jéye boo xam ne mën naa am loo ci réccu ëllëg waaye incha allahu taala jublu ci Euh, yow mi nga xamante ne ni maanaam euh, yàlla daf la defal tawfiix sa mbir yëpp di dox loo dugg rek mu sotti euh, loo jéem rek gis na yàlla defal na la ci tawfiix sa mbir yëpp di dox nga toll ci say bëccëg nit ñi sax dañ koy léemu comme li ma wax démb dañ gis ñu ne diw de dafa toll ci ay bëccëgam ndaxte daal biddiwam dafa jaar yoon biddiwam dafa am doole lool ci bëccëg yooyu mu toll wàccul yoon wa daal ma nga ca yoon wa guddi yooyu amut looy sumb rek ak loo góor góor lu mu tuuti tuuti tuuti rek góorgóorlu tuuti rek nga gis ne dafay sotti incha allahu taala nga gis ne mbir yi dafay dox lépp loo soxla ci àdduna rek boo ci defee yitte gi tuuti rek gis ne dafay sotti bu yàggee sax da ngay dem ba yaakaar ne da naagu euh, euh, dangay ngay naagu bu yàggee natt boo delloowul yëpp ci yàlla rek dangay ngay yaakaar ne yow yaa doxal mbir yi fekk yàlla mooy doxal mbir yi rek ñaanal yàlla rek yàlla gën koo saxal li ma lay digal nag yow moom nga xam ne sa mbir yaa nga dox dama lay digal nga fexe nga def lii ma lay wax nii boo ko defee yàlla dina la defal jàmm te itim sa biddiw dana sax nekk ca yoon ba mu nekk te du ko wàcc dangay fexe ngay def sa fatiha benn yoon boo defee fatiha benn yoon nga daal di ñaan soxla yi yàlla defal la jàmm musal la taxaar la sàmm la te yir la boo ko defee nga jàng yaa salaamun nga jàng ko ñetti téeméer ak fukk ak ñett maanaam trois cent treize nga koy jàng yaa salaamun boo koy jàng nag da ngay fexe euh, dégg nga maam nga njëkkee trois yi boo paree teg ci dix yi doog cay def trois cent yi nga def ko lu mat six jours moom nga koy def juróom-benn fan nga di ko tegle di ko def boo ko defee suba gi baax na boo ko defee ngoon gi baax na waaye bët bu set rek na nga ko def nga teglante ko ba mu mat euh, six jours nga di ko def incha allahu taala bu soobee yàlla ci jàmm ak salaam rek ci ngay dëkk ci jàmm ak salaam rek incha allahu taala ci lañ lay dégg. te yoon woowu nga jël doo ko wàcc mukk incha allahu taala mooy yoonu jëm ca kanam rek ci ubbeeku ci yu baax yu baax yi du yokk yow mi nga xamante ni nag yàlla dafa def maanaam say mbir loo dugg rek dégg nga maam du euh da ngay gis ne da ngay gor gor lu go xamne ki nga xamne mbiri mi day soti sax mom defu xaj xajat bi ngay def sax mom defu ko te mom lepp mu ngi dox da ngay fexé rek incha allahu taala nga jema a def li ñu lay wax yalla man na def tawfiq sa biddiw bu nekkon ci yoonu soo euh, dana wat ci yoon incha allah leeraat nañ ñi yàlla mbir yep incha taala da ngay fexé yowit li mu lay digal da ngay jema def euh, ya salam bi bo jangé fatixa ben yon ba paré nga jang yaa salamun bo jang fek nga yene sa soxlay ba paré nga jang yaa salamun dang kay jang momi moom témèr afuk ak fukk ak ñett waaye boo kay jàng da nga ko waxé ni da ngay njëkkee 300 yi nga tek ci 10 yi doog ci tek 3 yi nga diko def inshallah taala ba mat fukki fan ak ben te ci dag dara gannaaw boo paree ci loolu incha allahu taala nga daal di def li nga xamante ni moom mooy yaa latiif bi yaa latiif bi nag boo koy jàng da ngay fexe moom nga njëkkee mille nga teg ci cent yi doog cee teg onze yi fois nga jàng mille yi njëkk nga teg ci yi ci taala yàlla buur bu baax yàlla man na laa defal tawfiq incha allahu taala jotal lépp say càkkuteef te itim ñaan gi nak bala koo ñaan na nga fexe nga def lii ñu lay wax na te ñaan yàlla dafa am léegi léegi nga gis ko ñaan ba ne sonn naa man la ma ñaan dara nangu ci loolu kenn du ko wax ndaxte ma waxal leen tey loo xamante ni ci ñaan xadis moo ko wax euh, yonent bi dafa am mu ne maanaam euh, léegoo léegi ñaan yi di yéex a nangu ak ñaan yi di gaaw a dafa am lu ci yonent bi wax maanaam am na ñoo xamante ni dañuy ñaan yàlla ñaan ñaan ñaan yàlla ñaan yàlla ñaan gu yàgg yàgg yàgg goo xamante ni dañuy gis ne ñaan gi ba léegi nanguwul manam pays yalla ba mo bëgg seen baat bi baat bi ñaan mo leen neex motax dañuy pat rek di la déglu ngay wax rek allahumma allahumma sa baat bi mo leen neex baat bi mo neex pays yalla ba motax pays bi bëggul nga nopi day bëgg rek ngay ñaan di wax am ko xamni it da fay ñaan bu waxé né allahumma rek bala daanee sa ñu jox leen ko mu ndax ta sa baat ba dal mom le pays ba sopput kon ñaan ku nangu ak ñaan ku wut wut ku ne ki yalla daf koo bëgg wala ki yalla daf koo bañ yalla dal mo xam la ci nek lepp waye dal ñi def ci nank bu baax ndaxte ñaan dafa am yoon bala nga ñaan yalla na nga fexé nga tag ba paré nga tag yalla ba paré ndax buur bur bokoy ñaan dafa xam no koy ñaané ki nga xam ne moom yor lepp bokoy ñaan dafa am foy jaar dafa am no koy ñaané tag gi nak dara gënu ci mag nga def بسم الله الرحمن الرحيم ببر انغدف الحمد لله رب العالمين تق يالله ببر الحمد لله رب العالمين جانت نيالنا الحمد لله جانت نيالنا كان قمنتيني موم موي بروم مندفي الرحمن بوربي يرم جام ييب سي الرحيم بوربي يرم كاكا نيه الله سي الله قرا انغ ديغي نكون الله قرا يالله مو يرم كوكو نيه كوكو فا رك لا يرم maaliki yawmi diin ka nga xam ne moom mooy buuru bés penc iyaaka naabudu yow la ñuy jaamu wa iyaaka nastainu yow la ñuy dimbali ni ko ihdina siraatal mustaqima waaye yàlla nga ñu jubal ci yoonu way njub ña siraatal lazina anamta alayhim gayr al maxdubi alayhim wala daalin yoon ba nga xamante ni ñoom nga nanguloon ñu baax ña ñoom nga tànnaloon ñu baax ña waaye it ñaanuñ la yoon ba nga xamante ne nii moom nga meree woon ña nga xamante ne nii sam mer dafa tàbbi ci ñoom euh, te nga maanaam def leen ñuy ay way jubadi waaw xam nga loolu kooku wax tàgg nga ko boo paree ci loolu nag bu la neexee nga teg ci sa yeneen yoo xam subhaana lazi bi yadihi malakuutu kulli shayin wa huwa samiul alim subhaana lazi tudd naa sell ak borom ba nga xamante ne bi yadihi ca loxoom ba malakuutu kulli shayin ci la bépp nguur nekk وهو السميع العليم موماي كي خمنتيني موماي ادي دغ ا آه، موماي ادي خم خم نقول تاغا يالله بو بري نك بو تاغي بو يالله با بري غا جولي تي يونتبي صلى الله عليه وسلم مان غا ديف آه، جولي تي يونتبي اللهم وسلم على سيدنا وانا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا وانا محمد صلاه على النبي بو مان رك جولي كو يونتبي نوتا يونتبي موي بونتاب يالله يالله كيب كو نيان داغي جار تي يونتبي مو دوغ لا نانغول ganna bo tagge yalla ba pare da ngay jaar ci yonentou bi muy buntu bi luko may do am dara lépp lu waaye am ci àdduna rek mën ko amee ci yàlla waaye ci buntab yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom la ko jaaree nga xam ko am nga ñàkk koo xam nag amul dara loo xamante nii nit am na ko ci àdduna rek te doo ne ci buntu yonent bi la ko amee sallallahu alayhi wasallam boo pare nga julli ci yonent bi téeméeri yoon wala sax lu ëpp téeméeri yoon lu la neex rek julli na yonent bi wax na mu ne képp julli ci man benn yon euh, julli ci yow fukk euh, léegi ku julli maanaam téeméer yàlla julli ci yow junne yoon kon kooku loo julli ci moom rek doyut boo paree incha allahu taala bu ko defee nga daal di commencé ñaan soxla yi buur bi kat boo ko taggee ba pare jaar ci ki nga xamante ne nii moom mooy euh, buntam ah yaakaar naa ne dana la jox de dana la jox de moom kay mu mu gaaw ak mu yéex la ñuy wax na wax leen sànq leen léegoo léegi nit ñaan ñaan ñaan ñaan ñaan ba sonn yaakaar ne ñaan moo baaxul fekk pays ba moo moo moo bëggut mu nopp baatam ba moo neex pays ba pays ba moo soxla mu muy wax rek koo xamante ni day ñaan léegi rek ñi kaa jox na jox leen ko baatam bi moo neexut waa pays ba kon ñaan gu yéex a nangu dafa mat a xam lan moo tax ak ñaan gu gaaw a nangu dafa mat xam lan moo tax waaye firndeelul que ne yow mi ngi teel nangul yàlla daf laa sip sindi firndelu kidim ke ne yow mi nga xamé dañ la yéx nangul yàlla daf la baña jox waw yàlla dal mo xam ay hatem wa ala kulli hal ñi ngi ñaan yàlla defal ñu tawfiq ak taysir defal ñu hafiya hafu fi dunya fi akhirah insha allah taala ñi mat ci ñi debay ci xer rek ci ñaan yi bo paré nak insha allah taala ba def loolu li ma la wax salaatu ala nabi ba pare bu ko defé nak nga daal tàmbali ñaan su soxla yi yow ya xam la nga bëgg ñaan nga ñaan ci ma ànd ak ëdëb muy yar ak teggiin incha allah ba pare nga daal di ko tëj incha allahu taala ci salaatu ala nabi bu la neex bu ko defee nag yàlla moom moom mooy mujji bi daawaat moom mooy ki nga xam ne moom mooy nangu ñaan yi yàlla na yàlla nangu ñu ñaan yëpp incha allah loolu lañ bëggoon leeral boo tuxutoon a xaqat waxtu bi wax dëgg yàlla dinañ gën a wax gën a leeral waaye lii yëpp buñ koy indee rek bëgg maanaam nit ñi xam ak bëgg nit ñi bàyyi xel ci yu mel nii lu demee ni mbiri biddiw yi waaw mënuñoo wax lépp waaye buñ ci waxee lii rek nit ñi danañ ci bàyyi xel ne kon lépp lu ma war a dugguti ci lu demee ni maanaam wàllu sëy wala wàllum maanaam euh, àdduna la ci mbiri àdduna yi war nga ko mën a seet waaw lii yëpp bëgg cee bàyyiloo nit ñi xel la rek pour ñu war a xam ne mbir yi dañ koo war a seet njëkk ñi ciy dugg la waaye lépp mënuñ koo waxtaanee inchaa allahu taala ñi ngi jégalu bu baax xëy na beneen yoon dina ñëwaat ci lu mel nii wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.